kaso euh, def naa grève de la faim lu nekk nag dégg naa ko ndaxte kaso am na télé am ah. waaw ku yaakaar ne xam naa dafa amoon ñoo xam ne dañoo jàpp ne du ma a génn ku ñu tëj kaso nanga xam ne dina mës a génn waaw lu nekk dégg naa ko may toog noppi rek di seetaan di reetaan lu nekk dégg naa ko ñun ñun ñii toog fii ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo am ngànt ñëwuñu dañoo bëgg Sénégal bëgg joo xam ne dañoo bëgg Afrique bëgg joo xam ne même buñ ñuy noot même buñ ñuy dóor di ñu buntu xatal di ñu def taatu neen ñu ngi xeex ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy def taatu neen ñu ngi xeex ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy buntu xatal dama dugg Cap Manuel ñu ne téléphone mais unité cent francs c'est pas possible te ñëpp xam nañ ne téléphone yi prisonniers yi di utiliser ay Illimix lañ ciy dugal. ñu ne 60 secondes 100 francs boo wootee bu dagg sax ñu ne ñàkk nga voilà mais da ngay fay 10 minutes 10 minutes 1000 francs marchandises yi nekk ci boutique yi tous les prix sont surfacturés 100 francs 200 francs 300 francs benn nen omelette dugal ko ci mburu 50 francs 400 francs ci jamono. coronavirus ci jamono ji nga xam ne prisonniers yi week rek. li ñu mun jot ceeb sinon du lundi au vendredi dara mënul dugg ci kaso yi prisonniers yi nekk ay doomu askan yoo xam ne ils sont affectés impactés par le coronavirus jënd naa jënd naa pakku ndox six bouteilles xaw ma un litre trois mille feuille benn feuille blanche cinquante francs loolu yëpp biir Cap mais ma ne ko bàjjan yi muy la directrice ma ne ko bàjjan yi lii mënul nekk ma ne ko bàjjan Khady euh, mu di nga wàññi njëkki yi di nga wàññi njëkk yi parce que détenu yi dañoo sonn man waxuma ne mënuma fay cent franc unité de waxuma ne mënuma fay cinquante franc déedéet mais li ëpp ci détenu yi Babacar Diop xam na ko ils sont issus des classes populaires des couches populaires nga leen di jaay benn omelette nen ak 50 francs mburu 400 benn feuille blanche 50 francs c'est grave la minute du téléphone 100 francs ma ne ko di ko wàññi booy dugg ñu defaat la taatu nen bon ndeysaan sama jabar dina ma ne encore looy tudd sama taatu nen ngeen jéggal ma maintenant tudd sama taatu neen pas pour man pas pour man je suis désolé ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en parle nga dugg ñu ne la ma defal taatu neen ñu simbi ba nga set wecc man ne leen mais ça c'est un traitement inhumain et dégradant pas parce que man nga man ngeen koy def même ay nit yu am 71 ans on leur a fait ça man ne leen mais yéen bu nekkoon seen baay di ngeen ko def taatu neen ñu ne ma déedéet ba pare ñu jël say bagage di ko sànni ci suuf nga indi ceinture ñu sànni ko ci suuf nga indi calpe ñu sànni ko ci suuf ceinture yoo xam ne day bees te ñun ñëpp xam nañ ne du dem ci mbalit bi mais calpe yoo xam ne day bees ñun ñëpp xam nañ ne du dem ci mbalit bi donc fu mu jëm ñu ngi nekk Cap Manuel ci jamono mbas mi képp kuy dugg kaso foofu ngay jaar d'abord donc c'est pour quarantaine man ñu dugal ma ci néeg boo xam ne maximum cinquante personnes la war a jël y en cent cinquante bi ma fa génnee y en près de deux cent chambre une c'est la chambre la plus peuplée du Cap Manuel chambre une chambre deux chambre trois man waxuma ne nañ ma dugal ci beneen chambre déedéet mais sama dugg bi lu tax mu am solo mooy sama yeneen dugg yépp kenn mësuma pakataas mais dama dugg chambre boo xam ne dañ ma pakataas pakataas mooy dañ leen di boole nii comme ay sànni nii ngay tëddee nii ngay tëddee toute la nuit nii nii ngay tëddee la nuit ngay def maanaam yow mënoo tëdd nii mënoo tëdd sur le dos mënoo tëdd sur le ventre de profil ngay tëdd waa ji sës ak yow mu am ay borom doole yoo xam ne ñooy def nii jël seen tànk di pousse pour que bu mu am espace parce que bu ñu ko defulee kenn du tëdd donc dañ ma ñu ma mandat de dépôt mais vendredi ba lundi paquetage mais lundi soir mënuñu ñëwoon paquetage xaw ma ndax dégg ngeen wax ji de dañ doon paquetage pour ñu xaj mais lundi soir c' était impossible de faire du paquetage on était 150 lan moo amoon sur les cent 150 ñu ne quarante yi paquetage ñeneen ñi toog. waaw toog en vente da ngay toog ni accroupi keneen sës sës ci sa awra toog def en film ndaxte kenn mënutul def nii donc accroupi en rang comme ça ma ne ko mais Badiane yi la directrice en fait de la prison yow nekkuloo directrice maison d'arrêt et de correction mais directrice maison des esclaves la ma ne ko même ci gaalu même ci gaalu négrier yi mais nit yi dañ doon tëdd nii sax ma ne ko loolu di ko soppi benn di nga wàññi njëgu téléphone bi ñaar di nga wàññi njëgu boutique bi trois di ngeen bàyyi chambre une chambre de xool ne ni ngeen koy lijjantee quatre euh, quatre mooy dugg bi bàyyi leen di sànni bagage yu nit yi di ko sàcc sax lay wax. alors li am mooy mardi matin xam naa mooy bi ngeen yëgee nouvelle bi nous étions trois à entamer la grève de la faim mais grève de la faim bi lii la woon de dégg naa si lu nekk nag. Guy Sagna dafa bëgg ñu traité ko en prisonnier particulier déet lii rek la woon lii rek la woon bàjjan xani bañ ñu jël ma ne ma la loi sera appliquée dans tout sa ñu dugal ma ci cellule boo xam ne un mètre de large trois mètres de long trois mètres de hauteur amul lampe amul dara d'accord da ngay dugg rek chaise bi mooy chaise anglaise enfin pas chaise anglaise mais non pas la chaise truc l'autre mais l'autre chaise bon l'autre chaise d'accord mais vous comprenez li ma bëgg a wax. ñu dugg ñu ne ma simmeekul ma simmeeku mu des sama benn short ñu ne ma yoroo caleçon ci biir ma ne leen non ñu ne ma ma ñu simmi ma taatu nen. ils m'ont mis dans une chambre infect bu saleté dand tilim noonu laa duggee ci biir chambre bi def fa 57 heures mais lii la woon de du woon leneen c'était ces revendications là maintenant si yokk leneen. boutique bi prix yi ñu doon jaay ci boutique yi les gardes pénitentiaires prix yooyu lañ doon jëndee même les gardes pénitentiaires ses collègues étaient opprimés ils achetaient au même prix que les détenus donc ma def grève de la faim gars yi ñëw saraxu ñaan ma ne leen déet li jënti leen bi le directeur euh, de l'administration pénitentiaire colonel Bokandé ñëw fa alxames je crois bu dee juumu ma mu ñëw ñaan ma ne ma Guy Marius dama lay ñaan ñaanatuma la sax en tant que directeur de l'administration pénitentiaire mais en en tant que mag ak rak bëgg nga bàyyi grève de la faim bi ma ne ko déet. bàjjan xaj lu mu nekkee ci kaso bi du dëgg du yoon mu ngi noot jéelmaan yi te jéelmaan du ma la mala jéelmaan du ma mala un prisonnier à des droits mais le même jour le téléphone est passé de 100 francs l'unité à 60 francs l'unité mais du 400 francs économie est-ce que pour man la tous les prix ñu wàccee ko ba mu yem ci prix wu en fait l'extérieur loolu pour man la mais c'est pour wax ak tamit jéelmaan yi ma fa bàyyi ak citoyen sénégalais yi foo nekk ci Sénégal da ngay xeex injustice nee naa leen bés bu ñu ma jëlee sax dugal ma ci almeel naa xeex injustice bés bu ñu ma suulee ci suuf naa xeex injustice